وبالخلاص وبالممدوح أعطي لنا إخلاص يا ربي وتوفيق ويسرا أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق قمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن حب المكتوم برزق البرازق ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني وعلى جميع خلفائه وأهل الطريقة أجمعين mbokk yi ñuy دغلو في fi راديو سافينا اف FM 98.2 في نيغي fi دي نيو تي di nuyu دي نيو دي di زياره دي نيو ziyaara di رك fa tabarakallahu ci bëccëgu àjjuma ji waaye di jiital ci nuyoo yi ak ziyaare yi suñu kilifa diine yi di leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bëccëgu àjjuma ji di si jiital suñu xalif généraux yi di leen ñaanal yàlla mission bi nga xam ne moom lañ yore mooy mission wu mag ñi yàlla na yàlla kàttanal leen di dëgëral leen bañ mottali ak seen sago ci barki yonent bi waye jital ci nuyo bobu ak ziyara bobu ak ndokel yoy yep ak ci gaaju ma ji suñu xalif général Serigne Babacar Sy mohammed Mansour ñu nuyu ko bu baax baax ziyaar ko jaarale ci mom nuyu mboolem njabootu mam Cheikh Seydi El Hadji malik ziyaar len bu baax baax waye ñaanal ko yàlla mu doli ko wér ñaanal ko yàlla yi liggéey yi nga xamni ne yu mak ñi la mu nal ko yàlla katanal ko ko eggele ko ak sagom ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël nuyu biñ koy nuyu nak mom mo nga xamne moy suñu khalifa waye ak mbollem njabootu mam Cheikh Seydil Hadj Malick diko tek ci ñu loxo soppe suñu sang suñu sëriñ suñu wasila suñu buntu ci kanam maam Cheikh Seydil Hadj malik di Cheikh mohammed al mustafa si Al Amin nuyu ko ziar ko bu baax baax ñaanal ko yàlla mission bi ko mak ñi dénk yaakar ko ci mom yàlla yàlla kattanal ko ba mo eggale ak sagom ci barki yonente bi ak mbollem ñi mu bokkal doonay mam Cheikh Seydil Hadj malik si radiyallahu taala anhu dellu siwaat ci seen plateau euh, Miftahoul Houda nuyu mboolem njabootu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall nuyu leen ziar bu baax a baax te ki nekk ci bopp bi di maam Cheikh Omar Thierno Bachir Mountakha ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax a baax ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko te sàmm ko ci barke yonent bi waaye jaar ci nuyoo boobu suñu bunt ci kër maam Cheikh Omar di suñu sang di suñu wéyjur di Thierno Hamidou Yoro Bane moom it ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax. waye ñaanal ko yàlla mission bi nga xamni mom lay yore waye liggéey yi nga xamni it mom moy mission wam yàlla kàttanal ko ci waxna ni mom ñett rek moko yittel moy fexe ba kenn ku ci ne ba réew mi jak waye fexe ba diine ji ñong waye fexe ba tariqa bi sam fa tabarakallah yàlla nako yàlla dolli ay ndam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamna fofu lañuy jaar rek nuy soppe yëpp nuy auditeur yeeg auditrice yëpp bàyyi nag ak suñu professeur suñu serigne suñu oustaz suñu sang suñu mak al إمام imam alxaaj Pape Makhtar ñu nuyu ko ziar ko bu baax a baax ginnaaw ba ñu nuyoo nag suñu patron mooy suñu directrice nuyu ko bu baax a baax ziar ko ak suñu technicien bi di Cheikh Ibrahim fa tabarakallahu bàyyi imam mu nuyoo ak auditeurs yeeg auditrices yi ñu doogoon ñëw nag ci point bi nga xam ni moom lañ war a waxtaane tey incha allahu rabbi al oustaz wa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Mouhamadul Mansour maa ngi lay delloo nuyoo di la ziara. di nuyu auditeurs yëpp ak auditrices yi. di ci jiital khali général Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour. ak rakkam yu tedd yu sell yëpp. ak doomam yi ak njabootu Cheikh Al Hadj Malick yëpp. di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dolli ko jàmm dolli ñu ko amiin yaa rabbal alamin dolli ko mboolum jullit ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam nuyu mboolem kilifa diine yëpp nuyu comme ni nga ko waxee Thierno Mouhamadul Bachiru Taal nga xam ne tey mooy xalifa maam Cheikh Alhaaj Omar al Fuutiyu waaye jaarale suñu nuyoo bi jëm ci moom ci Thierno Hamidou Yoroban ak mboolem famille امام الشيخ الحاج عمر أمم. رضي الله تعالى عنه وارضاه وانا به امين اي خمنا دافا منو نياك صح ني نيو فامي الشيخ الحاج مالك نوبي ني دني نيو فامي الشيخ الحاج عمر دغوما لا دي ماني دافا منو نياك اها ني نيو فامي سيد الحاج مالك wala ñu tudd Seydi El Hadj Malick wàññeeku tudd Cheikh El Hadj Omar wala tudd Cheikh El Hadj eh, ay li ma sama benn wëllëre waxoon li ma buñ lay waxtaan loo ah. ci Cheikh El Hadj soo waxtaanee Cheikh Omar waxtaane nga Cheikh El Hadj Malick lay waxtaan loo ci Cheikh El Hadj Malick nga tudd Cheikh El Hadj Omar ndax ñoom ñaar benn jëmm la woon dunu ñaar ndeysaan ndax li nekk rek ci cheikh alxaaji omar loolu la sotti ci cheikh alxaaji malik si radiallahu taala anhuma macha allah kon ñuy leen ziar leen baax nuyu auditeur ak auditrices yi nga xam ni ñu ngi déglu la yëpp ci biir réew mi ak ci biti réew mi oustaz Mansour di leen ziyaare ñoom ñëpp di leen baalu xaq di leen baal di leen nuyu di nuyu suñu directrice soxna Ñima Ba ak waa rajo bi yëpp xaj Mansour jërëjëf fajati imaam oustaz alxaaj Pam Maxtaar macha allah ci nuyoo yooyu waaye ci jàngale bu am solo boobu nga xam ni jàngale bu gàtt la waaye bu rëy a rëy la macha allah yal na yàlla fay la yiw ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sàmmal ñu suñu mag ñi ñi nga xam ni ñoo ñuy yee ñoo ñu yar yee ñu jàngal ñu ba ñu mën a ràññale fa tabarakallahu oustaz nag tey ñuy dellu siwaat ci benn point fas yéene ko waxtaane mooy tawxidul ilahi wéetal yàlla subhaanahu wa taala naka la lan mooy tawxidul ilahi wéetal yàlla lan mooy wéetal yàlla lan mooy kennal yàlla lan mooy yàlla si boppam ban place la war a occupé ci la occupé moom yàlla subhaanahu wa taala ci ñun tey loolu la ñu bëgg ñu càmbar ko ñu waxtaanee ko ak yow ba mu wóor ni ba kenn ku ci nekk mën a bàyyiwaat xel yàlla mooy kan lan ban place la war a occuper. parce que mhm. dafa mel ni yenn saa yi soo dégloo si jamono. dafay mel ni dafay am ñoo xam ne dañuy nelaw ba tey <laughs> tey nag sa tey loolu la ñu bëgg a waxtaane mooy weetal yàlla moom kese ah. subhaanahu wa taala waaw Mansour indeeti nga tomb bu am solo mhm. te moy tombu wéetal yàlla subhanahu wa taala xam nga Mansour yàlla yoni gi mu yoni yónent aha salawatullahi wa salamuhu alayhim ajmain ak wacce gi mu wacce tere alquran yi aha ak gannaaw yonent sahaba yi wutu yonent aha ak mag ñu baax ñi nga xamni gannaaw gi ñoy taabiina yi tabi'i taabiina tabi'adi الى يومنا هذا بسن كلف ديني لن رك موتخ يالا واخ لو لن لن رك لا يالا واخ لو لن لن رك موي لن وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين يا دفا بغ ني جاموكو واي جاموغي اندك ويتل أنك سلال نيغا تودو باب ام توحيد Mansour yonent bi alayhi salaatu wassalaam woote na at yu bare ci màkk at yu bare bare bare ci màkk te booba bi yonent bi dee woote sallallahu alayhi wa sallam mhm. li ñuy wax takaalif amul mhm. maanaam booba yàlla togguñu benn jëf yàlla togguñu ko dara togguñu ñu maanaam waxuñu ñu teguñu julli mooy togg teguñu woor teguñu azaka teguñu dem màkk teguñu si dara dara booba jaamu yàlla booba amul lenn lu ñuy def wax rek wax rek wax mooy lan quulu laa ilaha illa tuflixu wéetal yàlla rek boobu moo am wéetal fexe rek ba xol bi fas ni benn yàlla amul ku dul kenn ki te du kenn kenn ki la mooy yàlla xol bi fas ko làmmiñ wi tudd ko cër yi jëfe ko uh-huh. nan la ko cër yi doon jëfe mooy bul dem jaamu xërëm uh-huh. bul rey dara pour xërëm yi uh-huh. nga wéetal yàlla foo tollu bëgg ko ci sa xol ba loolu fexe ba samp ci sa biir xol muy ña muy ay mbir loolu rek la mooy laa ilaha illallah kon tawxid boobu nga indi mooy rasul umuur yi maanaam jaamu yàlla su amee bopp. tawxiid mooy bopp bi. tawxiid mooy bopp bi mooy maanaam jaamu yàlla su doon jëmm juy dox da nga naan tawxiid mooy bopp ba. Mhm. soo ko daggee rek. dara nekkatu fa dara nekkatu fa. Mhm. ndax boo jullee yàlla bëggatul soo wooree yàlla bëggatul soo joxe azaka yàlla bëggatul lu mënti defal yàlla yàlla bëggatul su fekkee nit ki amul tawxiidul ilahi maanaam wéetal yàlla subhanahu wa taala don lu am solo la kon tomb boobu tey moom nga indi tomb wéetal yàlla subhanahu wa taala wéetal yàlla nag mooy li yàlla moom yëpp Mansour nga jox ko ko bañ ci dugal kenn li yàlla moom lépp nga jox ko ko Sénégal nag damay wax ni tey tawxiid dañu war a jàngaat ñun ñëpp. waaw lañu war a jàngaat ñun ñëpp e, wax naa ko léegi ci suba ñun jumtukaay yi nu yàlla jox. pour mu waroon ñu jegeel yàlla jumtukaay yooyu moo ñu far soreel yàlla. dégguma la de jumtukaay yi ñu jox. yi ñu yàlla jox. pour ñu war a jege yàlla. pour ñu waroon cee jege yàlla. moo ñu soreloo yàlla. jumtukaay yooyu moo tax far ñun ñu sore yàlla. sa loolu lu ma ko mën a déggee. ñun yàlla def ñoo may ay nit ñu baax ñu sel ñu ñuy tuddee ay sëriñ. Uh-huh. ay sëriñ. Uh-huh. ñu leen di tuddee ay kilifa diine. Uh-huh. ñooñu. waroon tax ñun ni ñuy bëggee yàlla ak ni ñuy xamee yàlla ak ni ñuy toppee yàlla ak ni ñuy jaamoo yàlla yombuñu mhm. far loolu mujj nekk kii ñu nekk kiiraay suñu diggante ak suñu borom far ñu far wàññeeku ñun def ñooñu ay yàlla mhm. ñu far wàññeeku def ñooñu ay yàlla ay yàlla xam nga am na ñu bëri ñoo xam dañu contre serigne dañoo contre serigne bari na bari na de. ah bari na man ci wet damay and ak ñom nga contre serigne ngay and ak mom ci wet ñi damay and ak ñom ci wet. fan ngay and ak ñom kay xam Mansour so jangi suratu nuh inna arsalna nuhan mhm. da nga fa fekk ci geen ba ci bamuy muy jeex. suñu borom subhanahu wa taala di netali mhm. nit yonti yàlla noox ya uh-huh. seen ñu baax ña yàlla baaxaloon uh-huh. seen ñu baax waaw ñu yàlla baaxaloon uh-huh. ñu leen doon topp ak mba ngir mbaax ga leen yàlla mbaaxaloon fan lañ mujjeeg ñoom ñun àgg nañ foofu ñun egg nañ foofu waaw àgg nañ fa dama ay nit ñu baax ñu ñu baaxaloon ñooñu di won nit ñi yàlla di tegtal nit ñi yàlla nit ñi di leen topp di leen roy jamono di dox di dox di dox di dox di dox di dox di dox di dox ba mujj am ñoo xam ni ñooña ñu daan topp di leen roy ngir ñu yóbbu leen ci yàlla ñoom ñu far leen def ay yàlla ñu faf leen def ay yàlla ay yàlla wa qaalu laa tazarrunna alihatakum wala tazarrunna wuddan la suwaan wa la yaquusa wa yacuuqa wa nasran ñooñu tur yooyu ay nit ñu baax lañu woon ñu daan topp nit ñi dem di leen topp di leen topp ba yàgg ñu ñeen di leen màggal di leen jox ay cër di leen yëkkati seen gannaaw fekk ñoom sax faatu nañ bu yàgg fekkewuñu loolu di leen yëkkati ba mujj am ñu leen def ay yàlla fii senegal da ngay dégg koo xam ne day tudd turu sëriñam daal ni yàllay jaam yi wala amul ah, am na am na moo tax kooku ñi contre mag ñi ngir ñi mel noonu man ñu laa wax ne damay ànd ak ñoom parce que ab sëriñ nag mhm. sëriñ matu sax yonent sëriñ matu sax saxaaba bay mat yàlla benn nag laa wax ci sëriñ si mhm. kon tawxiid wéetal yàlla loolu dañ ko war a delloo si xoola te bénéfice bu la yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama jaam mhm. su defoon bàkkaar yoo xam ne bu ñu ko tegee ci suuf mu laal asamaan mhm. yowmal xiyaam mu ñëw ma vérifier bàkkaar yi mhm. fekkuma ci benn yoon fu mu ma mës bokkaale ma jéggal ko yëpp tabal ko àjjana waaw mais oustaz problème baa ngi noonu parce que fu ñu waxee wéetal yàlla mhm. soo xoolee contraire bi mooy bokkaale yàlla ak yàlla léegi nag nan la ñuy séparer nan lañuy ñuy parce que li lan la ñuy tuddee bokkaale yàlla ba nga xam ni yàlla nee na moom loolu rek mooy li nga xam ni du ko baal jaam bi mhm. lan la ñuy tuddee bokkaale yàlla soo woon yàlla ak diw yaakaar ni maanaam liy am faaw yàlla ànd ci waaye ànd ci mu soogaam di am bokkaale nga ak hmm. yàlla ak diw yàlla ak diw ak kon yàlla daal amul ak ak déedéet yàlla ak yonent bi sa bëgg yàlla kay rek kot boo yaakaar ni kenn mën na def wala kenn mën na dindi wala kenn mën na amal wala kenn mën na xañ ku dul yàlla rek yow bokkaale nga ak yàlla da damay bokkaale ak yàlla xam nga am na ñoo xam ne tey bu ñu doon wax duñu wax incha baatu incha allah bi nga xam ni yonent bi li nga jàng ci siire yëpp yëpp mosoo gis fu ñu fii bi sallallahu alayhi wa يالا داف كو في بيني ولا داف كو في يد لودو سي باتو ان شاء الله كسي كسي امول فنان سي القران ييب ميم ابسا بي ني واخ ني بو ديمي سي نيت يالا يي كو غاي دي فيري اك ньоني بوكول نان دا عبد الله بن مكتوم يالا دافا يد يوننتي بي ددت بوكول اها ددت كان لول تاخوما جوك اوكي داي باغ سا خيل دم فوفو موتاخ ما تيج بونتو بوب افكتيفمون نان دم fenn rek la yàlla mësa waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko walaa taqullanna li cheyin inni faa'ilun zalika gadan illa an yasha allah te dafa fàtte dafa fàtte dafa fàtte te yonent bi nit la sallallahu alayhi wa sallam waaye melul comme nit ñi yàlla dogal keroog fàtte ñëw ci moom fàtte wax na ko saxaaba yi ni leen nit laa comme yéen damay fàtte su ma fàttee di leen ma fàttali كروك بمي جامو تي جولي موم يوننتي بي دا فا جامو جولي جولي رك توك سجوت البعد سجوت القبل تي نتلي دحيه الكلب كان تي صحابه يلون كو رافت واخنا ني تي ني غنو نور يوننتي بي تي لا بوك تي صحابه منو كا affaire bi yalla daf ko wañi wala dafa am leneen lu xew mu ne ko lan mu ne ko julli gi mu ne ko ah lu ci xew mu ne ko ah tisbaar gi xaw ma defde. gi ñeent nga ko doon def de mu ne waaw waaw ñeent la mu ne tey ñett nga ko def de mu ne damaa juum mu ne waaw ba kon dafa ñu laaj ko ci mbiru zil xarnay ini. Mhm. muy déglu yalla histoire baa ngi ca suuratul kahfi mu cay déglu yàlla ne leen dem ba su dina ñëw mooy jibril dana ñëw indil ma wax yu mhm. waxul bu ngoonee ma wax leen de dem leen ba ngoon ba jibril jóge suñu borom ñëw wax ma kon ba tey delloo na ko suñu borom la ko delloo waaye fàtte wax benn baat incha allah joxe na rendez joxe na rendez-vous waaw pour indil leen réponse bi waaw ba pare fàtte wax incha allah te réponse bi jógewul ci moom ci yàlla lay jóge fàtte mhm. dégg nga. Mhm. yàlla ne ah sama waa fàtte na fàtte fàtte na waaye danaa jàngale ci moom. fàtte na. waaye danaa jàngale ci moom. kon moom ñi mu yónni ñooy ay exemplaire am moom yàlla. ci ñoom lay jaar jaar di jàngale. lu wax jullit ñi wax na ko yonent yi. Mhm. gis nga bo tomb bii ngay wax muy tawxiid. yàlla ci kaw suuf. ak ci kaw asamaan. ak ci diggante asamaan ak suuf. yaakaar naa ñetti yooyu rek am. Ah, man laa xam de. ak yeneen awaalim yi ñu xamut. ku gën sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. nekku fa ku gënal yàlla yonent bi nekku fa. nangu nga loolu. bu nangu naa ko. ku ko gën amul ku gën yonent bi amul fenn fenn fenn xoola dama yàlla sax jéggal ci baat boobu may utiliser baatu ku gën yonent bi. jangale la wa na si yalla jéggal manam may wax batu ku gën yonent bi loolu na yalla yàlla ci bat bi mang koy koy yalla aha ndax bat bi yellul muy genn ci gimign ni di wax manam ku gën tek ci yonent bi bo ne ku gën da nga naan yonent bi gën ñep rek sallallahu alaihi wasallam. ku sa xel dem ci aduna bi la la wax ah gisul pundo Rasulullah. pëndu pëndu waaw yaakaar naa ñu ngi ci mille quatre cent xaw ma quarante quatre yooyu. te lañ nekk bi yeneen bi duggee ci biir suuf ak léegi. Mhm. pënd ba ko gisagu ko te du ko gis. sallallahu alayhi wa sallam du sëriñ du xutbu du malaaka du amul ku gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi moom ne bi mu waxee yàlla ne xaaral ma jàngale ci moom. Mhm. wuy ma Mansour ñu dellu tuuti ci ginnaaw fàtte bi yeneen bi fàtte ku ko fàtteloo. yàlla. très bien yàlla ko ko fàttaloo ba pare wàññeeku di jàngale ci moom xam nga lu mu ko wax lu mu ko wax wala taqulanna li cheyin inni faailun zalika gadan illa an yasha allah bul waxati danaa def dara ëllëg wala léegi sax ci ngoon wala xaaral ma jóg def dara nii wala xaaral ma naan kaasu kafe bii ma téye nii ci sama loxo teg ko ci sama tuñ bul wax ni xaaral ma guux ko lu dul da nga ni incha allah yàlla wax ko yonent bi directement. yonent bi la ko wax direct sallallahu alayhi wa sallam soppeem bi ki ko gënal ñëpp di jàngale ci moom baat boobu rek incha allah yonent bi te daf ko fàtte yow nag doo fàtte fii Sénégal da gis koo xam du fàtte moo ko tey loolu la yaakaar ni muy dëgg loolu la gëm ci xolam loolu la def ci xelam danaan la Mansour Fall suba incha allahu rabbi maa ngi yow ñu ànd dem Sandaga. incha allah sax maa juum <laughs> wax ko dam ko tàmm. dala xam Mansour suba ñu ànd dem Sandaga bu neexee sëriñ bi wala bu soobee sëriñ bi loolu déggoo ko ba tàyyi Mansour. ba tey déggoo ko ba tàyyi. Ah, auditeurs yi may dégg tamit xam na ni dégg nañ loolu ba tàyyi muy bokkaale goo xam ni dara gënu ko rëy. oustaz yàlla di joxe exemple. ci yonent di jàngale. waaw xool ki ko gënal ñëpp te gën ñëpp. joxoñ ko baaraam. Mhm. pu ko wala man ne sanctionné ko sax xëy na ci loo ci ci ci cadre boobu. toog quarante jour xoola daf ne leen bu ngoonee tey la vendredi. Mhm. vingt et un wala dix neuf wala vingt. vingt vingt. mu téye ko xoola dolli ko si ba quarante jours. quarante quarante jours. gisul jibril jibril ñëwul. yonent bi danaan toog biir këram biir néegam jibril fekk na fekk fa xoola dem na ba mujj yonent bi mooy génn ci ëtt bi di seenu jibril du ko gis. génn ba si génn ci mbedd mi di ko séenu ba mujj mu génn ba ca montagne u màkka ya comme jibril ci kaw asamaan si lay jóge mu yéeg ca kaw montagne di ko séenu te moom dafa fàtte te dafa fàtte tayu ko ñaareel bi mooy jëlul place bi jox keneen ñu sanctionné ko en tant que Seydina Mohamed. sa alayhi wa sallam 40 jours. 40 jours rawatina nag yow mi nga xam ne da ko wax. pour jël place bi. wala dogal bi yaakar ni kenn mën na dogal dara te lima ci gëna a naqari xoola ñi ni wax bu soobé ñom ñëpp ñu ci biir suuf ci dégguma la dé ñi ni wax ni bu soobé ñom ñëpp ñu ci biir suuf ci soobé bay morfal ah, ñëpp rek bay alaaji rawan si la sama bay. ñom ñi ngay wax ñëpp rek ñu ci biir suuf ci ñom ñëpp ñu ci biir suuf tëdd dañi nem waxatunu yëngotunu nga naan bu soobé ñoñu bokkaale gënu rëy loolu ci kaw suuf mooy tawxid bi ngay ubbee di ko wax ah. te ma dellu siwaat ci yonent bi encore sallallahu alayhi wa sallam wax naa la baat incha allah yonent bi li ci ñu ko jox avertissement bokkaaleeg yàlla tamit bokkaaleeg moom bokkaale yàlla yonent bi li ci njëkk a joxaat avertissement ba tey te lim ko joxe avertissement ci yàlla la jëmaat mu jox mu avertir ko si waaw yàlla xam nga Mansour tey nga baal ma Mansour yàlla rek ay yàlla. yàlla rek ay yàlla. gis nga tey kilifa goo fi doon liggéeyal. Mhm. li nga koy liggéeyal nga baal ma ci waxin yàlla amul ci dara intérêt. Mhm. li nga koy liggéeyal intérêt boppam nekk ca. wala muy lum la sant. wala lu mu bëgg. Mhm. même ju boo juumee. su lay gàgganti du la gàgganti publiquement. su lay gàgganti. yàlla musul gàgganti yonent bi ci biir nekk publiquement rek ci alxuraan ñëpp jàng. muy beneen jàngat. ci alxuraan ñëpp jàng ñëpp. kon loolu dafay wane ni la muy wax la muy gàggante yonent bi yonent bi rek moomu ko. ñëpp ko moom xam nga yenn saa yi man bu ma bëggee tëj sama wax di joxe exemple damay tudd yonent bi rek ne ndegam yàlla mayu li yonent bi man man waxuma keneen. dëgg maa bëgg man man man foofu laay tëj. Mhm. yéeféeri màkk dañuy ñëw ci yonent bi. xam nga dafa commencé wote ñu ni ko saaxir nga njabarkat faalewu leen mu continue xoolu la ilaha illallah tuflixu wéetal leen yàlla mooy baat bi nga indi tey pour ñu waxtaane ko su ngeen bëggee texe gaay yi ne ko saaxir nga faalewu leen gaay yi ne ko kaahin nga mooy buxaaba faalewu leen gaay yi ko majnun nga sa xel dafa des faalewu leen gaay yi ko azatirul awwalina la lee bi mag ñu njëkk ña mu leen fekkewu ma seen jamono de mhm. kon fu ma ko jële gars yi ni fay yeetum laa alayhi bukratan wa asila am na kuy ñëw di ko dicté suba ak ngoon mu ñu koy wax mhm. faalewu leen ñu mujj wax ko baat bi nga xam ni e, tuddu ko sax diis na ma ñu ni ko kazaab nga mhm. faalewu leen mu continuer gars yi ni ko léegi xam na li tax ngay woote dangaa bëgg nguur kañ jox la meeru dëkk bi màkk faalewu leen ñun ko xam na ni da ngaa ñàkk kaanu jox la alal faale faalewu leen mu continuer rek ci lim nekk ñu xam ni nag kii kii li mu nekk bu doon àdduna yi kese kese kese kon fekk si na leen parce que lépp àdduna proposé nañ ko ko li àdduna am yëpp indi nañ ko ci kawam muy alal muy nguur muy nguur nanguwul dara mu sax ni xoolu laa ilaha illa allah tuflixoo gaa yi ni nag sa waay kii li muy woote gaa yi diisoo waxtaan ku mel ne aboo jahlin mun leen kii mës maa ko yar mësuma kaa xamel wax nekk sëdul noon na ngeen baal ma ci wax ci Mansour yonent bi dafa am ay orma dafa am ay xorma ay xorma moo tax même am ay baat yoo xam ne di tudd mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woni yow mi koy tudd ni baat bi warul jàll jëm ci yonent bi mais jangale tax bo demé ci téré bu tudd achafa bu xaadi iyaat radiallahu taala anhu mu ngi ca Marrakech ñu jënc mook Ahmed Sukayri ji du woon sax Tijaan mhm. waaye mook Ahmed Sukayri ñoo làng fuñ leen jenc mhm. dem naa ba ci bàmmeelam ma ñaanal ko mhm. wëlbati ko ci Ahmed Sukayri ji ziyaar ko ndeysaan xam ne moom xam-xam nitu yàlla la woon ko amun cër ci yàlla laaj naa Ahmed Sukayri lu tax ñu jenc ko fi ñun dafa ma alaqa bu ko yàlla boole woon ak kii Qaadi Iyaad moom mu wax ni su faatoo nañ ko indi fii ci watu Qaadi Iyaad loolu laajte naa ko ba ñu wax ma loolu. Mhm. moo tax ñu jënc ko fii. Mhm. boo demee ci téere bu day wax ay xàq yu yàlla ci yonent bi. Mhm. léegi Abu Jahl ni kii man maa ko yar maanaam ci samay loxo la ganee jamono. maag baayam ñoo boo ko baay. ay kii lu mu wax dëgg la. ñu ne ko ah mais lu tax na nga bëgg weddi weddi loolu. mu ni cër yëpp ci màkk ñoom ñoo ko féetewoo nubbu wa ñëw mu bëgg fi woote waat yonent gën ñëpp kon ñun ñu torox te te jalousie ñëw ki ñaan ndeysaan na moo tax baaxul mhm. moo tax Abu Jahlin li tax gëmul yonent bi daf ko weddi ngir iñaan mhm. gis nga Mansour Pa Maxtaar buy woote dara Mansour Fall weddi ko ngir ñàkk xam mhm. suy xam di dugg su ko mbay saw weddee ngir iñaan Demba Njaay weddi ko ngir kiñaan duñ ko mës gëm ko mës moo tax weddi benn baaxu ci waaye bi ci tane mooy weddi ngir ñàkk xam soo xamee rek gëm mhm. léegi waa Màkka bi ñu waxee yooyu yëpp faalewu leen ñu ñëw Mansour ni ko léegi dañoo bëggoon def nii xam nañ li ngay wax dëgg la mhm. mais suñu yàlla yow tamit depuis say maam ba léegi ay hubal ak laataak uzaak yi yi mun ñu leen fi bàyyi yow tamit léegi dañoo bëggoon ñëw jaamu sa yàlla ji six mois nga ñëw jaamu suñu yàlla yi six mois ñu àndandoo jàmm am bi gars yi waxee ak moom loolu rek mu toog nii di leen déglu rek yàlla yónni jibril jox ko aay ni ko sa borom ne la in ashrakta la yaxbatanna amaluka ولتكنن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين جبريل نيو نيكو سبورم يال دافا غين دافا غين فوف دافا غين لا مقسم لجفانديكو بور nga خامني ليكو غاي دي بروبوزي <laughs> تي تونتو غول دي اها جيمو تشا بوي تونتو يتام دو جا واخ Uh-huh. mu ni ko lay na ashrakta maa ngi waat ci ki la muy man yàlla uh-huh. soo nangoo liñ la wax dugg nga ci cadre shirk mooy bokkaale yàlla soo ko defee uh-huh. la tahbatanna amaluka xam nga fi ma jaar ak iblis xam nga fi ma jaar ak iblis ak ni meloon ak man naa fa jaar ak yow te kii wax wóor na ni ko ni kii du fa jaar moo tax bàkkaar yëpp waaye mi ngi bàyyiloo xel ñii ñëw ñu leen ndegam moom laa mën a pine avertir ko ci lii sakkama sakkantuma laa keneen macha allah fajar ci imam mu ne ko leen ashrakta la yaxbata na amaluko moo tax tawxid wéetal yàlla moom la jullit bu nekk war a fexe ba mu nekk ci sa xol xoola gis nga gis nga boo jàngee alxuraan ba pare Mansour laxdar yi bi ngay jàng ko loolu la njëkk a jàngal awalu maa yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi تسحيح إيمانه ثم معرفة ثم سوغان بيو معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والتهارة والصيام جيس نقول لك دري بويا وان فوف كيس مرنا صيام وان فوف رايك كيس عندنا توحيد مرنا مرنا مرنا تيري بورون لور كيس موي تيري بيب تيري بمرنا بي ndax wax naa la fi ngay jaar mhm. ba mën wiital sa borom mhm. wax na la fi ngay jaar ba mën gëstu ni ngay jaamoo yàlla subhaanahu wa taala dafa am solo mhm. soo gisee nag Mansour nga baal ma bokkaale yàlla léegi bari ci réew mi xam nga lu ko waral lu ko mooy ñi ñuy tuddee ay kilifa diine te nekkuñu ko ñi ñuy tuddee ay kilifa diine te nekkuñu ko seeni taalibe toog ñoom ñu yéegee seen bopp fu ñu àggul seeni taalibe wala seeni bokk yéegee leen fu ñu àggul te duñ nangu wàcc ñu nekk fa bañ neen leen ay yàlla ngeen jox leen cëru yàlla jox leen cëru yàlla mag ñi bu njëkk lu nu man lu nu xam bu ah. dee fukk boo bëggee taxaw ni man nga ñaaree ñu weddi te mën nañ fukk te mën nañ fukk nga nga nga joxam leen ñaar ñu weddi ndax bañ nga dem ci ñett ndax ci mag ñi mag sant yàlla mhm. ba léegi nag am na fi de ba am na fi ba léegi des na fi Mansour entre parenthèse mhm. bërki démb di àllarba mhm. dama dem seeti sam pap Mansour si bu alxaaji Abdul Aziz ah. ñu toog waxtaan mm-hmm. diir bu yàgg mm-hmm. gis nga ma ñëwee mun ma bismillah pour na toog naa toog ci fauteuil bi ma ne ko mukk papa ci suuf laay toog mm-hmm. mun ma kon de dañu àndandoo taxaw nii rek wala ñu àndandoo toog ci suuf waaye fauteuil bi moom da ngay toog ma toog ma toog ñi nga àndal toog Bachir doomam toog ci kaw ñu wax wax wax bëgg coro mu ni ma sama xaaj Malick bind na ko te yonent bee ko wax mhm. mu ni yonent bi ne ni juróom bu ko kenn delloo kenn juróom juróom ma ni tekk di ko déglu mu ni ma toogu mhm. toog nga ñëw ñu jox la fenn ni la toogal fii toogal ndawal yàpp mhm. donte doo ko lekk yow suñ la ko joxee mu ni ma neel ñore tuuti rek mos soow mm-hmm. donte doo ko naan buñ la ko joxee guux ci tuuti delloo mm-hmm. tàndarma mm-hmm. donte doo ko lekk buñ la ko joxee mos ci tuuti wala nga nangu def sa poos bu juróomeel bi parfum bu ñu la ko joxee laal ci tuuti rek léegi nag mun ma toogal ñu toog ñu ñëpp ñu bokk toog ci kaw bi ñu toogee ci kaw ñu commencé waxtaan xam nga bi la njëkk a dagg uh-huh. sant sant sant la njëkk a sant lu njëkk a dégagé indi aaya bi teg ni ma gis nga fa idaa nufixa fi suuri ma ne ko falaa ansaaba baynahum mhm. mun ma gis nga sant fii la yem si laa sant ay dara laa sant taal laa sant mhm. silla laa sant faal laa sant mhm. sekk laa sant fii la yem demul kër yàlla te te te demul kër yàlla fii la yem mm-hmm. nit li ngay gëne nit du sant waaye hmm. yàlla wax na ko ah. yàlla ne xooluma seen melo yi seen melo yi mm-hmm. xooluma ko mm-hmm. xooluma seen melokaan yi xam nga lu may xool may xool seen jëf yi laay xool ak seen xool yi seen jëf yi ak seen xol ak seen xol yi kon kilifa yi ñuy tuddee kilifa diine ñoom xoola tey mag ñi bu njëkk soo tot Cheikh El Hadj Malick mag ñi dafa toog benn bis yaram bi tàng mu ne man de salatul faatixi li ma ci xam dayoom ak daye yonent bi su ma xamoon Sénégal fii benn nit bu ma wóor ni nangul na ko salaatul fatix yi may zikkar sama yaakaar dana dëgër de ni jaamu yàlla yu bari ëllëg yàlla mën na leen làmb yërmandeem yóbbu leen aljanna moom Cheikh Al Hadj Malick nee na ci ji ca ca jataay ba génn góor yëkkati loxoom mu ne ko bismillah sëñ diw mhm. góor gi ni ko man de xamna ko xamni xam ni ma ni yàlla nangul nako ay salatul fatihin Cheikh al Hadj malik bi ci bëgg lu baaxam ko mu yakam yakaw liku ko góor gi. di xaar ba xam kan la. ni ko kooku kan la. góor gi ni ko yaw bi ko góor gi ne yow al Hadj malik toga toog bu jëkk ni ko ah diw lol de yow lu wóor waye man de wóoruma si. ci français wu bi. xoolal gi wàcc. ku ànd ak yow rek nga ne ko yàlla la de ku ànd ak yow rek nga ne ko yonent bi la de ku ànd ak yow rek nga ni ko téere yàlla bi la de mooy alquran gis nga lii fii ñu ko jëmbat ci xolu taalibe yi jëmbat ko ci xolu juriñ ñi kenn du bokkaale ak yàlla wala ku ko def daf laa rëcc. oustaz place bi yàlla war a occupé. ci nit ki. xam nga yaa ngi wax kilifa diine yi waaye place ak place bi yonent bi war a occupé ci nit ki est-ce que jege yoon na bokkul. yàlla dañ koy gëm yonent bi dañ koy sopp yàlla dañ koy gëm gëm moom rek lañuy ñu war gëm gëm gëm mooy lan gëm mooy lépp luñ la wax ni ci yàlla la jóge te jaar ci yonent bi sallallahu wala mu jaar sallallahu alayhi wa sallam mhm. wala mu jaar ci alquranul karim wala yàlla ni la loolu am naa ko wala def naa ko nga gëm ko hmm. loolu mooy gëm سمعوا اشهد ان لا اله الا الله أه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اها نين لا اه يالا نك مو يوني سيدنا محمد اها غني غمنا غني غمنا موني امنا اي جام يو خامني دولين غيس اي ملائكه لا غني غمنا فك يالا يوخ مون لا امنا اي تير يما واتي بيشي موجي موي القران اها غني غمنا مون لا لب لو دال نيت مان لا لومو ام مان لا لومو نياك مان لا غني غمنا mun ne bisa ngi ñëw ca kanam di bis penc di yomal xiyam nga ni gëm naa mu ne yàlla dana àtte jaamam yi foofa ñii mu <laughs> yóbbu leen aljanna yàlla nañ ci yàlla boole amiin yaa rabbal aalamiin ñii mu yóbbu leen ca safaan ba yàlla nañ si yàlla musal amiin yaa rabbal nga gëm <laughs> loolu mooy al imaanu billahi nga gëm yàlla ni ngay gëmee yàlla nag ci yooyu noonu ngay gëmee yàlla ci jëfam yi dogalam yi atteem yi lépp nga xam ne kenn mënul tus yàlla rek a mën nga xam ni kenn mënul tus kenn ku nekk yendu nga jant boo xam ne bëgg nga ndimbal waaw yàlla rek moo dul yendu jant bu mu ndimbal wala mu fanaan guddi bëggul ndimbal ku dul yàlla rek àgg nga fa waaw ku dul yàlla rek bis jat na moo xam ñu wax ko walla ñu waxul ko waxuma la at waxuma la ëllëg yomal xiyaam de fii ci àdduna bii rek ñaanal nañ la fi intervention Uh-huh. wala yow nga dem ñaani intervention. Uh-huh. ñaanal nan la yow Mansour. intervention intervention wala yow Mansour nga dem ñaanali nit. soo doon yàlla doo ko mën. déedéet yàlla dana ñaan kenn intervention. déedéet dana defal dina wut ku ko defal intervention. déedéet kon doo yàlla. kon doo yàlla. kon tawxiid dafa dafa nekk lu neex Mansour. dafa neex dafa neex. maa nit ki su xasee ba wiital yàlla. bëgg yàlla dundam day neex dund li ngeen di wax yéen ñi jàng tubaab dund bu stable noonu ngeen koy waxee. effectivement dund bu dal xayaatan tayyiba nit ki mënu ko am te fekk gëmul yàlla. da gis ñu gëm yàlla ñoo xam ne yow sax yenn saa yi mbir day am nga yàkkamti yow. mais mhm. ñoom duñu yàkkamti. dañ naan tekk rek. tekk entre parenthèse maa ngi fàttaliku sëñ Pape Malick Sy. Mhm. رضي الله تعالى عنه يلا يلا يكير من أمين يا رب العالمين مقام يباخ يا سي وي جولي ام بول جولي امين يا رب العالمين بمو غيني ادنا سي منصور تشيرنو بشير قال نكو في يالا ياغال امين يا رب العالمين تشيرنو حامد pour mu dem téewal ko ci dëj ba mhm. ndax ngant mhm. ndax bu dul ngant lu xew kër cheikh al hadj malik xam nga ni jeune bachir koy taxaw mhm. man ak tierno ak Mouhamadul bashir ban ki mu tierno bashir ñu wara and dem. gis nga biñu ñu ba tollu daanaka post tiaray fa la auto yi rangaloo nii. daanaka ba ties te tierno kilifa ko te bëgg na fekke ñaan gi maanaam jullee gi mhm. bëgg na wax li ko kilifa gi yónni mhm. bëgg na tamit li ko kilifa gi wax mu defe ko comme ni ko kilifa gi waxe mhm. te embouteillage baa ngi am embouteillage baa ngi am ñu ngi ci biir oto bi maag Bachir yëpp kenn toogatul daanaka ci biir oto bi seen xel ci da nga jonkan rek waaye moom boo waxee rek fi mu toog mu ni incha allah daan àgg heure bi ñu war a àgg heure bi yàlla dogal rek daan ko àgg te incha allah yàlla mën na dafa li gën daañ fekkee lépp daal rek mhm. déglul dañu bu ñu julee takkusaan pare lañ koy ñaanal denc mhm. ko mhm. ñun bi ñuy dugg tiwaawan bi julli nañ takkusaan ba pare moom bu ñu dugg tiwaawan rek mu ne nañ xool benn kër gu ñu jaar julli fa takkusaan soogaam di continuer dem nga xam ne bu doon yow Mansour moom. déedéet da ngay jubale ah, direct damay continuer moom dafa nañ xool benn kër guñ jaar julli tàkku sànn ba noppi soogaam dem maa ngi sama xel kii de sootul day julli tàkku sànn day lazim <laughs> ñu julli tàkku sànn ndànk daal di àndandoo dem bi ñu àggee fekkee nañu jullee ga. mu gisante xalif général Tijane. Mm-hmm. wax ak moom kàddu yi ko Thierno yónnee. Mm-hmm. joxanteeg moom la Thierno bëggoon mu joxante kook moom. Mm-hmm. defanteeg moom la Thierno bëggoon yëpp. Mm-hmm. dara tardewul loolu mooy tawxiid. xam na ni yàlla su la boolee ci mbir mi mbir mi moom fàww danga ci bokk su la ci boolewul jaru ngay sonn. su la ci boolewul. am na ñoo xam ne keroog am na ñoo xam ne keroog ñu ngi tiwaawoon fa lañ fa lañ dëkk seen kër nga fa. jullee gi faat na leen. effectivement te bëgguñu ko woon te def nañu lu nekk waaye yàlla jox na leen ngànt bëggu leen ci woon boole ñun ñu jóge dakaar foofu loolu mooy tawxiid maanaam da ngay wiiteel yàlla bëgg yàlla xam ne sa lépp yàlla la sax sa digganteeg yàlla doo fa teg dara sëriñ warul dox diggante taalibe diggante wax ma sax taalibe jullit bi ak boroomam daf ko fa yoon wa daf ko war a rattaxal yàlla yàlla mm-hmm. yónni Seydina Muhammad pour nit ñi xamee yàlla ci yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam ah pour nit ñi xamee yàlla ci yonent bi sëriñ tamit moo wuutu yonent bi su wuutoo yonent bi dafa war a fexe nit ñi xamee yàlla ci moom Hadj Mansour jërëjëf fajoti imam oustaz alhaaji Pape Makhtar Sylla jërëjëf ci faram fàcce bu am solo bi nga xam ni tey moom nga indi ñu koy ñu koy ñu koy tasaare ci tawxidul ilahi wéetal yàlla subhanahu wa taala jox ko li nga xam ni moom la moom wax nga ñu ay exemple ci sallallahu alayhi wa sallam yoo nga xam ni rek doyoon na mu nekk jàngat ci digganteem ak yàlla subhaanahu wa taala oustaz ci wéetal yàlla ci ay dogalam oustaz souvent est-ce que dinañ ko boole sax ci bokkaale yàlla mbir dal ci kaw nit nit ki delluwaat ko ni lii de diwa ma teg wala lii de euh, ci pexe sàngam la jóge wala lii pexe sàngam la jógee est-ce que tawxiid dina dina intervenir foofu oustaz. bu baax. dina intervenir foofu. bu baax a baax. nit. su amee tawxiid lépp lu ko dal da koy delloo ci yàlla muy lu metti lépp lu mu am lu neex daf koy delloo ci yàlla ba pare soogaan di wëlbati ko xool sabab ba ñaar nga wax de lépp lu ko dal waaw ci naqari day jël yëpp delloo ko yàlla daan ni moom la daan ni moom la samaam alaaji Malick bind na ko nee na wa maa yafaalul haadil jalilu bi xalqihi fa zaaka jamilun yartadihi munibo Maodo ne yàlla lu mu teg jaamam nee na loolu lu rafet la lu rafet la lu rafet yàlla lu mu teg jaamam lu rafet nga toog di def nii émission ba yàgg rek sa téléphone ni kar Mansour Fall nga ni lu xew ñun la Baye Mor Fall jóge na fi ni alhamdulilah ah nga ni alhamdulilah inna lillahi wa ilayhi rajiun lillahi ma ata wa lillahi ma axasa wa lillahi ma ata mhm. jamil mu ni yërtadi yi xel mu sell di xalaat di xalaat mhm. day xam rafet la وتستوحد أرملة توحيد أرملة أرمى أرمى صحابة يقول مي قم يلا أقويتل يلا أنت خويل الدين الإسلام منصور قم يلا أقويتل يلا أنت خويل الدين الإسلام yow ngeen di ñetti téeméer wala ñetti téeméer ak fukk ak ñett wala ñetti téeméer ak ñeent wala ay juróom benn fukk wala ñeent téeméer bëgg soo ngi juróomi junni wala ñaari junni wala fukki junni yu yore ay ngànnaay yu gën a xarañ seen ngànnaay yi yaakaaroon ni loolu xaru la déedéet ban xaru gëm yàlla la gëm yàlla gëm mhm. gëm yàlla toog ci gëm yàlla kon da ngay jàpp ni rek yow kii nga jàkkaarool amul kattan yow rek am loolu la yàlla wax tahsabuhum jamii'an wa quluubuhum shattaa ñu ngi nii nekk groupe mais seen xool yi ànduñu amuñu doole yàlla am doole innal quwwata lillahi jamii'an yàlla rek moo am doole Mansour moo tax gars yi doon song te duñ ca laal benn intérêt benn benn xoola nga baal ma xare yi saxaaba yi ñeen nag ci saxaaba yi xaw a dugal tuuti intérêt sax yàlla dafa rocc loxoom bàyyi ñu ñu gañe leen xare uxut mhm. bi bi tegee di muy teg toogal fii yéeg leen fii mhm. bu leen wàcc def leen fii toog leen nii ñun dañ wàcc si suuf gars yi commencé rey yéeféer yi commencé dajale màng gi mooy xar yeeg mhm. fas yeeg giléem yeeg yooyu mhm. nangu alalu yéeféer yi teg mhm. yenn julli ñu ne eh yaa ngay dajale alal ja de suñu demul mën nañoo bañ a sédd wàcc di dajale yéeféer yi jaar ci seen gannaaw rey ci ñoom lim bu takku parce que léegi ña nga xool koom koom lañu xool yàlla rocceeku kon yàlla daal loo ko boolee rek mu bàyyi laak loolu waaye ay uxut xunayn xale yooyu nga xam ne gars yi dañu ñëw rek dër taxaw ay làpp yi métt lañ làpp yi féer yi kon moom loo ko booleel rek mu rocceeku bàyyi rocceeku nee na man ki may booleel maa ko ëppale comme Mansour mi ngi mel ne léegi rek ñuy def émission mhm. xoola man bi may ñëw 4-4 laa gaare fii wallaay mhm. damay joxe misaal rek taxe ta taxe ma indi Mansour ah pour man 4-4 laa ñëw 4-4 laa gaare bi may wàcc bu bees tàq Mhm. tuwaal yaa ngi si kenn dajee ko. amiin yaa rabbal alamin ma ñëw toog ñu bokk def émission. Mhm. bi may def si émission tamit lu mu gàtt gàtt sama poche deux million ngi ci lu ma moom. sama compte la ca nekk duma ko wax nit ñi. Mhm. ci misaal. ñu def émission ba pare bi nga ñëw nga dugg tata. waaw moom laa ñëwee de. fay deux cent. moom laa ñëwee de. ñu def émission ba pare. génn directrice woo ñu biroom daal ni seen émission bi tey neex na weer wi sax deewagul. pour ngeen war a am salaire. Mhm. ni émission bee neex may naa leen vingt cinq mille yi. yàlla nay dëgg tey waay. may naa leen vingt cinq mille yi wala cinquante mille yi. ñu mag ñuy dégg de. ñu ni ko roccet jël. Mhm. bu ñu génnee ci biti maag yow. dëgg dëgg suma ma des as gor ni la Mansour bàyyi naa la ak sama wàll. yàlla nag ki koy bokkaaleel. wallaay damay jox misaal melul noonu. <laughs> melul noonu ki nga koy bokkaaleel. <laughs> li mu yor yàllaa ko ko jox. li tax nga koy bokkaale yàllaa ko moom nga bokkaale ko kooku yàlla ni far naa la bàyyeeg moom far naa la bàyyeeg moom moo tax mbir yi dëgër yëpp yëpp yëpp dañ ci dugal beneen loxo bu dul loxo yàlla fan yi dama ànd ak génn góor ci magi Seydi Jamil yi la bokk Baye Moussa Diop la tudd bu ma juumul Moussa Yaasin lañ koy wax nekk yëmbal paa bu mën xalil ñuy waxtaan. bu mhm. may nettali fi mu jaar jàng fekk booba dañuy dem benn clinique di fa tuddi. Mhm. du benn xale. Mhm. suñu benn wëllëre la soxnaam am doom clinique. léegi bi ñuy dem si yoon bi nag. paa bi ni ma ah. clinique yi ak hôpital yi yëpp xewul woon. ma tekk di ko déglu mu ma gis nga léegi nit ñi danoo bàyyeeg seen bopp ñeneen ñu dul yàlla yàlla rocceeku. waaye ba nit ñi bàyyee seen bopp yàlla mu ni ma dangay ngay tàggu sa soxna léegi mu nekk ci ëtt bi di dëbb nga ni ma dem julli tisbaar ñëw nga dellu si tisbaar ñun la bindal ko toqantal nga ne lu xew nga ni ki doon dëbb fii am na gone te te te te mhm. Mhm. loolu tawxiid la wéetal yàlla la moom nee na mbir yi dañ cee dugal yeneen loxo rek mhm. ma ne ko déet papa jam mu ne ma jamonoy lan waaye ma waxu jamono hmm, jamono ci la bokk de mu ne ma bàyyil ma waxu boobu yàlla daf fi nekkul woon ma ne ko ah kay mi ngi fi kay a nekk ndeysaan pour wax sa bopp daf lay téyal sa lépp daf lay téyal sa yëpp kon nañ delluwaat wéetal yàlla subhaanahu wa taala bàyyi bokkaaleeg yàlla bi mhm. sëriñ yi ay sëriñ lañu mhm. ay nit ñu baax lañu mhm. nañ ñu teg ci yoon ñu jaamu yàlla ñoom ñu jaamu yàlla bu ëllëgee yomal xiyaam lu leen yàlla sédd ñu bokk ñoom ñun taalibe it lu ñu yàlla sédd ñu bokk ak sëriñ si. ñun taalibe yi lu ñu yàlla sedd moo am ëllëg yomal xiyaam dana am. taalibe yi ma dana am taalibe yu sédd seen seen seen sëriñ man maa la ko wax <laughs> maa la ko wax de maa la ko wax de ëllëg yomal xiyaam. di dégg ku yuuxu. ñu ne ah yaakaare wuñ ko woon foofu de waaw ku wuñ ko woon foofu de. fa jibe te la yomal xiyam ah da nga gis taalibe boo xam ne bu ñëwul du baax su ñëwul du baax déedéet jërëjëf fajrat imaam oustaz alxaaj Pam Maxtaar ah, oustaz ah. foo xam naa ni foofu la ñuy dellu si waat ba tey parce que tey suñu suñu waxtaan rek mooy yàlla ak li mu moom ak keneen ak moom cëram nga xam ne cëru yàlla moo jël cëram moo ko joxal boppam cëram mm-hmm. sédd ko mm-hmm. waaye nag kii séddale doo ko fi bàyyi nag dem di xëccoo ji di fa tabarakallahu oustaz li ñuy tuddee bokkaale est-ce que yëpp bokkaale la wala déet comme oustaz yenn saa yi nga dégg kun la euh, dem ziyaara ji armeel yi mhm. yu mel noonu ñu ni mhm. bakka bokkaale la mhm. ñu ni la bokkaale la dem ci sëriñ bi mu bindal la ay saafara ñu ni bokkaale la est-ce que loolu ci bokkaale la bokk wala déet dana bokk ci bokkaale dana génn ci bokkaale aha dina bokk ci bokkaale. dana yenn saa yi day dugg nekk bokkaale pire yenn saa yi day nekk tawxiid. nan lay nekkee bokkaale ak nan lay nekkee tawxiid imam. masalan tey. Mhm. Mansour Fall dem na ci bàmmeelu sëriñam. muy sëriñ kër si di ko ziyaar. Mhm. bu demee lu Mansour di def ci bàmmeel bi lu muy def. lu muy def ci bàmmeel bi. su dee Mansour day ñëw ñaanal sëriñ kër si def benn tawassul maanaam doxale digganteem ak boromam mu doxale fa sëñ Babacar ci aajoom mhm. wala soxlaam mhm. noppi ni yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may nangam wala nag ma defal nangam ci barki sëñ Babacar mii loolu tawxiid la loolu tawxiid la tawxiid macha allah teel boobu bu fekkee nag Mansour day dem ba ca du sëñ Babacar ba radiallahu taala anhu mhm. daal ñaanal sëñ Babacar wala du ko sax jotal ñaanal day ñëw rek taxaw ni sëñ Babacar may ma nangam defal man nangam defal ma nangam loolu bokkaale gënu ko rëy te bokkaale la. Eh, muy ñaar muy ñaar. waaw kii dafa jël dafa def tawassul. ci ki tëdd ci bameel bi. bàmmeel bi waaw. kii dafa ñëw ñaan ki nekk ci bàmmeel bi directement. direct. macha allah. loolu nag laa mën a wax ci benn. ñun ci niveau bi gën a. waaw boobu rek laa mën a wax. nga mën a nga mën a comprendre. waaw pour ñëpp comprendre. effectivement. dégg nga. ñu mhm. ngi bokk charia ak bokk xaqiqa beeg yëpp rek ñu comprendre. Mhm. takk téere. Mhm. yenn yi day nekk tawxiid piir. day nekk tawxiid piir. piir maa bind sama fàllaxi ak sama naasi ma takk ko. ni fàllaxeeg naa si bii kat yàllaa ko jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci jibril wax ni muslaay la comme yàllaa ko wax digle ko muy muslaay man mën naa ko jàng waaye dama koy bind takk dama koy bind takk ko sama ndigg laa koy takk muy muslaay muy sama muslaay kooku saa yu ma ko takkee maa ngi wéetal yàlla subhaanahu wa taala macha allah sama falak ak bobu nak aha may wetal yalla mhm. léegi tak nako guddi jot na tekki nako xeyna naa sangu ba set sol sama yere jël sama sak, jëm radio ba genn ba ca taliba wala ba ca buntu kër ga fatte ni fatte lu ni takuma sama fallaxeeg sama nasi ba ma ko delu ci di jël ci fallaxeeg nasi bi di tak bokale nak yalla bokale nga ak yalla ak yalla naa dem rek sa sa bi sew na de kon foofu laa lay wax ma la tere bi day nekk yenn saay takk bi tawxid yenn saay day nekk bokkaale yàlla ma bind ayatul kursi yi ma dégg li mu am ci njariñ mhm. ma bind ko wut sama Evian bu dix litres xooj ko si chaque jour bu ma xëyee naan ci kopp mhm. chaque jour bu ma xëyee naan ci kopp mu defal ma muslaay mhm. wala sax ma tànk ci kopp dem fo laab sang ko ci sama kaw yaram bi tey nag ma xëy fàtte ko ba génn ba ma génnee ma fàttaliku ma ni i naanu ma ci sama kursi yu ba de du baax ma daw dellu si naan ci raay ci génn bokkaale na yàlla kon dafa mel ni su ma la eh. su ma déggee ci sama dégg-dégg bu ndaw xam nga ah. ndongo luy jàng moom dégg-déggam day gàtt yaay professeur bi oustaz mhm. kon dafay mel ni soo concentré woo ci li ngay def mhm. yaakaar ne affaire bi moom la ah. rek bokkaale lay doon bu waye soko baye xamni li kat digle yàlla la. ma jëf ma ma ma jëfandikoo rek dotul nek bokale tawhid lay doon. Seydina Ali ibn Abi Talib. téere téré wax ne même parastamol bi. parastamol waaw muy comprimé bi. waaw xam bo parastamol amul dama bëgg rek ki may dégg-dégg. effectivement jangale wala pikir bi. wala liñ koy sam perfusion le tudd xawma waaw. su doon naan garab su ko tegee fi ci loxo bi. bala muy dugg ci gémmiñ gi. day wax ni bismillah. la dawa yashfi illa bi iznillah bismillah maa ngi koy naan ci turu yàlla waaye garab gi maa ngi lay xamal ni benn garab mënul faj dara lu dul na fajal nga ya xam nga day day gis ku boppam di metti mu naan paracétamol mu sedd bopp bi sedd booba yàlla nam mu bopp bi na sedd rek mu naan paracétamol bi mu sedd wax da waxi dof la am ko xamni bopam day metti te bop bi moko wara ray su nané parastamol bi xola malakul mawti day laaj parastamol bi yow lu looy dox mu ne ko xanaa jàppale la pour dee gi gaaw paracétamol ba doon fajj bop bi. moy change mission. voilà. <laughs> kon affaire bi du parastamol bi. déedéet. parastamol bi du fajj bi du nangam nang nitu yalla yi amna ño xamni du nu faju. Mhm. du nu faju. dañu faju. du mukk. دون فجو باب مودي توري يالنا يالا يوكو ليرام امين يا رب العالمين تتاس نشي باركيم امين يا رب العالمين بمام هادي توري رضي الله تعالى عنهما جابو تم بالما مو بالما دغنا دا فا امون فيبرو اسما اسما بو فات مي بوين كو مسان واخ بومب داي باغ ني دو ديف بومب بوين كو مسان واخ نا ديم اوبيتال بور ني خول يارام وي داي باغ ني دو ديم اوبيتال دين كول تاخ موني فيبر بي mais nattu mission am lay dox su fekkee feebar bi day dox mission am dal ci sama kaw ma ko moo def mission ma dem hôpital docteur yi di ma faj kon man feebar bi xañ naa ko mission am te te tolluwaay la daa góor <laughs> la tolluwaay la ah la tolluwaay la te te wane wu ko foofu daf ko wane fu bëree bëree bëri doomam wax na ma daana wax ci dundam bëgguma ci kaw suuf sama tur ànd ak turu lii sëñ Maodo ko moom oto bi sëñ Maodo ko moom wala nangam ji déedéet hmm? may nañ ko oto yu oto mu téye caabi ji Mansour Fall lay dugg may ko oto bi pam Makhtar dugg léegi waxtaan ak moom di taalibe mu jekk baa ko xool la ni la am nga oto nga ni ko déedéet mu boole këyit yi ak caabi jaag yëpp ne léegi lañ ma ko fi jox oto boobu ci biti boo génne nga taal te dem kon moom ngëm-ngëmam moo tawxiitam moo àggoon foofu. ci wàllu yàlla. oustaz. ba tey dañuy jël si ci foofu bi ñu ràññalee. Mansour balaa ngay tëj foofu gis nga nit. feeg melu na ko dof ci wéetal yàlla ñun feeg jaawale wuñ la ak dof. dof ci yàlla maanaam ci ni ngay gëmee yàlla ak wéetal sa tawxiid des na. fekk jaawale wuñ la ak dof. dof sa tawxiid des na. foo nga def loo xam dañ naan kii dafa xaru sax kii day xaru fekk loolu yëpp gëm gi nga gëm yàlla ak wéetal gi ngay wéetal yàlla ak xam gi nga xam ne dara mënul dal ci kaw nit mhm. wala nit mënul am dara lu dul yàlla mooy tax ngay jëfee noonu xaj Mansour mooy tax ngay jëfee noonu oustaz yan sanction nag la yàlla préparel ki nga xam ni day waxuma sax jël yàlla jël keneen teg ko place yàlla waaye day dendale yàlla ak keneen yan mooy sanction yi yàlla préparé pour ñoom yàlla nee na ku dendale kenn ak man sa yaram araam na àjjana safara laa la jëmale nga ni képp koo xam ne dendale nga kenn ak man nee na yaram wi po bi waxoo nga jël place am de déedéet dendale dendale dendale rek comme nga ni yàlla ak diw fekk xam nga nee na loolu soo ko defee nee na sa yaram xaram na sa àjjana safara laa la jëme direct allahu akbar man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna كيف كبوك عليك حرام لناكو الجنة دو في دوغ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من بكار لا من تولوري لب أمو بومو منو تولوري سي بكار بن كسي لا تي منو تولوري دو مكو بالكن نيكو بان موني بوكالي lu dul bokkaale rek mën naa ko jéggale ba mu des bokkaale bokkaale du mu ko jéggal kenn te te ah allahu akbar nañ sant yàlla ñun taalibe man de damaa gën a tiit yaa ngi sant yàlla waaye man dama dama gën a dama gën a tiit parce que yi ñuy wax ni mooy bokkaale yàlla ak sanction yi ci nekk mhm. nga xam ni sanction moom munta weesu ñu ni la yow ngelaw aljana doo ko xeeñtu sa yaram xaraam na sa yaram xaraam mhm. sanction moom munta gën a diis sanction boobu ci nga jël yàlla rek dendale ko ak nit ci ko ci rawatina ci jamono ji ñuy dund ci réew mi ñuy dund Oustaz Mansour man dama gën a tiit Mansour la bayk yàlla yàllaa yey. oustaz sanction yi diis na de. diisul dafa woyof tooy. ñun ñii ñëpp muy yow mii di man mii di ñi déglu ku fekkoon sa soxna ak beneen góor. hii oustaz hii li ngay wax xanaa. ah rek la ah. non oustaz déggoo li ngay wax xanaa. ah, ah xoolal li ngay wax waaye oustaz. Ah? xoolal li ngay wax. dafa garaaw de ah. yii garaaw na. lu garaaw jëf ji. jëf ji jëf kay kenn waxatu kenn waxatu ko. tey nga rey sa bopp de. kooku moom soo moytul da koy rey te yow mbugal mi nga yaakaar ni moom ngay mbugal nit sa xol sedd wala mu gën a rey mooy rey ko boo ko rey mënatoo si moom dara. booboo gën a sedd. waaw ah, kay yàlla nag di yàlla nag bind ab jaamam moom oh, yàlla. Oh, oh. ah mënal ko lépp defal ko lépp ni ko bu ma bokkaale mu bokkaale yàlla. yow miy jaam sa jabar di jaam lee man la rey gis nga koo xam ne looloo tax mu xaru rey boppam mhm. am na koo xam ne xoola jabaram rek jabaram rek moo ko wan gannaaw demul si gisu ko sax feneen daf ko wan gannaaw rek mu xaru mhm. mu dee mu rey boppam mhm. gis nga koo xam ne ñàkk jabaram jaral na ko alalam ak yëpp te bu ko ñàkkoon amaat yeneen jabar gis nga koo xam ne ñàkk jëkkëram jaral na ko alalam yëpp te su ko ñàkkoon amaat beneen jëkkër loolu mënoo ko digérer gis nga fi jigéen bu jëkkëram dee mu ni ba ba dee dootul am beneen jëkkër gis nga fi góor bu soxnaam dee mu ni ba ba dee dootul am beneen soxna ngir bëgg gum ko bëggoon ak colère gis nga ko fii Sénégal kay ñu ngi ni xam naa fi maire boo xam ne suñu yaay joo xam ni mhm. keroog ba borom këram gaañoo mhm. dafa ni dootul am borom kër ba ni mu gaañoo moom mhm. xam naa turu borom kër ga xam naa yaay ja Mm-hmm. ñu bari ci senegal xam nañ wax na ko ci ay télévision ñëpp di dégg. Uh-huh. ñëpp di dégg. Mm-hmm. ba tey ñëpp di dégg. Mm-hmm. ba ni ko fekkee. ndeysaan ah. ngir loolu dara waralu ko muy cofeel. Uh-huh. bu mu amoon ci digganteem ak kóllëre ak bëgg gum ko bëgg ak wóolu gum ko wóolu ak teraanga yu ko kooku defal. tiim nañu nit di ko jullee jëkkëram sant ko gërëm ko di maa ngi ñaan yàlla kii ni mu nekkee woon sama soxna ci àdduna yàlla ma yàlla dimbali ba ëllëg yomal xew mu nekkaat noonu sama soxna mm-hmm. ngir bëggeel ak cofeel mm-hmm. loolu yëpp nag ndegam nit a ko man te bindul deful dara yàlla mi la bind lii bu ko def nga ne danga koy def oustaz moo yey wax nga sànq ni yàlla moo yey walla bëggoon nga wax ko rek oustaz yàlla yàlla yàlla moo yey waxuma la parce que lii kii soo ko ñàkkee danga nga koy utiwaat rek ñoo taxaw amaana sax mu gën ci yow kii waaye kenn du yàlla ci ñun waaw moom nag mu defal la lépp mën na lu la kenn mënalul jaar ak yow fu kenn ak yow nga xam ne say waajur yi la jur ci seen biir seen geeño sax fekke woon mhm. defal la loo xam ne kenn mënu ko defal ni la yii yëpp benn fay rek laa ci soxla mooy jaamuma te bu ma bokkaale kenn mënoo maa sax fay njukkal nga ne ko dana la bokale ken mun le déet bu ko def nga ne ko dana ko def nga def ko mun le kon tuub ko bala ñuy daje nga sax ci ba de ni ko dum duma ko tuub ah ki bo ñewé lum la def yàlla na way ki so ñewé lum la def yàlla na tay mu nekkoon suñu waxtaan ak oustaz imam alhaaji cheikh pam mahtar Sylla sama professeur ñu doon waxtaanee tawxidul ilahi wetal yàlla subhanahu wa taala wala kennal yàlla wala jox li nga xam ni la moom moom jalla jalaaluhu wa azza kamal tey moom la ñu suñu temu tey ñu koy waxtaanee fii jaar nag incha allahu rabbi ubbi téléphone ak suñu technicien bi di Ibrahim Camara fa tabarakallahu ci 88 628 10 95 ku dugg rek Ibrahim ñu jël ko ko ànd nak oustaz ba Makhtar sil ci tem bi nga xamni tay mom lañu andi diko waxtane moy kennal yàlla subhanahu wa taala oustaz yàlla kennal yàlla kennal yàlla baat boobu sax dañ di ko jox keneen <laughs> yow ni kennal sëñ Mansour Fall <laughs> am na ah. man man bu ma nit nuyoo ma maa maa ngi lay màggal dama naan de maa ngi lay ziar di la màggal dama déedéet maa ngi lay ziar di la màggal oustaz loolu terme la rek quoi benn terme rek oustaz bu ñuy ah, bu ñuy appliqué bugguma bugguma màgg nan màggal yàlla nañu màggal yàlla nan màggal yàlla dafa am baat yoo xam ni muy indi leneen baat yoo xam ni mooy indi leneen. dafa am baat yoo xam ni mooy indi leneen. waaw xam nga yenn saa da ngay ko maa ngi maa ngi lay yéegee sa yéeguwaay. yeneen ti bokkul woon loolu yeneen ti bi dañu woon anzilu naasa manazilahum wàccee leen nit ñi seen wàccuwaay. Mhm. kon kay maa ngi lay wàccee sa wàccuwaay moo gën a jub maa ngi lay yéegee sa yéeguwaay. maa ay terme yoo xam ni. xoola yooyu lañu war a xam nga day am wax yoo xam ni dañ koy yaraale ci société bi di ko yaraale ci jullit ñi di di ko yaraale di ko yaraale di ko yaraale bu mujj mu indi njuumte goo xam ni kenn dootu ko mën a defar ci penc bi mhm. kon màggal yàlla nañ màggal yàlla subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala nañ màggal yàlla moo jara màggal waaye maa ngi lay màggal nit daal kenn waru ko wax maa ngi lay màggal oustaz wax nga sànq ni yàlla dañ koy gëm yonent bi wayjur yi topp leen sëriñ si ñu ak ñoom ñi def ñu def ko oustaz dafa dafa mel ni danga ko wax sànq ci wéetal yàlla mm-hmm. ci bi ngay bi bi ngay introduire sànq ci mm-hmm. ci laxtar yu mm-hmm. ci biir dafay wax ni dafa dem ba ci biir mu ni la bul jëf benn jëf loolu danga xam àtte ba waaye mu mu waxaat ci lax euh, laxdar yu tamit bul sàkku ngërëm ak kenn ci benn jëf mhm. lu dul dafa nekk ngërëm ak yàlla ba pare mhm. dafa mel ni loolu tamit day dellu siwaat mhm. ci biir euh, ci biir euh, darsi bi dafa tegle ñetti wax yu am solo Mansour dafa tegle ñetti wax yu am solo dafa tegle ñetti wax yu am solo ñoom nga tegle noonu mooy dafa ni nit wala yafaalu fi'lan xata yaalama xukma laahi fii gis nga bu ko ñëpp defoon kenn du bokkaale ak yàlla ndax sëriñ bi sax balaa ngay an an an ànd ak sëriñ da ngay xam atte yi tax atte yi nga war a ànd ak sëriñ da nga xam atte yi nga war a ànd ak sëriñ mu sëriñ ni ñu war a ànd ak yonente rek lañ war a ànd ak moom ni ñu war a ànd ak yonente nañ war a ànd ak moom te mu wuute nag ci wàllu tax may wax. effectivement ñëwal. ci wax ndax gis nga fii koo xam ni am na xam-xam xam na lu nekk ba pare wàññeeku nekk saay-saay. kon su fekkee ni yow. xam nga jëf yi. jëf bu nekk xam nga la ca yàlla wax. nga di jëf. doo def naka sa dul noonu. mooy wala yafaalu fi'lan xataa yaalama xukma llaahi fiihi. li ngay jëf xam nga xam nga kenn du la ko jàngal comme xam nga li ngay jëf te kenn du la ko jàngal kooku doo ci def erreur Mansour mooy walaa yafaalu filan xatta yaalama xukmallaahi fiihi mooy benn ñaareel bi mu wax nga wax ni laa taata li maxluqin bi maasiyati lxaaliqi dañuy gis koo xam ne day toog nii sëriñ bi di waxtaan yoo xam ne laa faidata fiihi la amul benn njariñ ba waxtu wi paasati moom du jóg julli. te dafa toog rek si ak waxtaan ak sëriñ bi. sëriñ bi te Cheikh Al Hadj Malick ne ki kii tardé julli ngir liggéeyal sëriñam moo kii jaamu xërëm ñoo yam képp. kon xàmme. kon muy ñaar ñetteel bi. muy ñetteel ñeenteel bi sëriñ kenn du ko roy. kenn du ko roy. du ko roy. déedéet. niñ koy def dañ koy laaj. muy wax nga xool ko. su jëfee comme li muy wax li mu lay jàngal jëf comme li yonent bi doon jëf nga roy ca loola xam nga tey Mansour Fall yow yaa ngi toog fii ci rajo bi naan yàlla ne yonent bi ne yàlla ne yonent bi ne nit ñaa ngi lay dégg naan yàlla ne yonent bi ne mais say jëf ñun ñu looy jëf kon dañuy comparer wax ci ak jëf ji léegi nag yow bu ñu dajeek yow nag gis li nga doon wax nga koy jëf mu dëppoo nañ déglu li ngay wax te roy la su fekkee ni li nga doon wax dafa wuuteeg li nga doon jëf nañ la roy nañ déglu li nga doon wax te jëfe ko te ñaanal la yàlla te ñaanal la yàlla waaw ah, eh waay sama sëriñ ba Seydi El Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu dem yaram wi tàng mu dajale mag yi ni waa li ma leen wax ci sharia wax leen ko ci tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijane su ma ñëwaatoon wax leen leneen nu di def dégg naa bàyyi Youssoufa Diop daa nekk ah si xanaa ñu wéy rek ñun continuer ca la nga ñu doon wax ci sharia duñ ko wax ci tariqa bi te jàngaloon ñu ko te ñaanal la yàlla nga dellusi ñaanal la yàlla nga mu ni alhamdulillah ba ma yàlla jox booleeg bokki taalibe xulay taalibeem de bokki taalibe yoo xam ne su ma doon yoon ñu continuer te ñaanal ma ma dellu si xaaj Mansour oustaz kon dafa mel ni da ngay fekk ci dañuy da ngay dellu si waat firndeel la nga waxoon ni nit ki bala moo ut sëriñ dafa war a xam ba pare parce que sëriñ dañ ko war a topp dañ ko war a roy dañ ko war a déglu dafay fekk siwaat ci li nga conclure léegi eh, sa li nga daanee léegi sa kaddu li muy wax su méngoo ak li muy jëf te li muy wax méngoog alquran ak sunna dañ ko ko war a déglu ba pare da ko war a roy ko li muy wax su méngoog alquran ak sunna te jëfandikoowu ko nga bàyyi la muy jëf te déglu la muy wax yow nga jafe ko. Mansour da nga gis taalibe boo xam ne yitte ji mu amoon balaa muy dem ci sëriñam ba mu demee ci sëriñam amatul yitte jooju ci jaamu yàlla. kon yokk ko daf ko wàññi. daf ko wàññi kër sëriñ boo xam ne boo toogee. Mhm. bu noddee kenn du soññee jóg leen julli. te yow ba ngay ñëw ci moom waxtu dawul daaw la raw ca jàkka ja kër sëriñ boo xam bu noddee. kenn du soññee jóg leen julli kenn du soññe ñëppay toog sëriñ bi tamit mi ngi toog yow taalibe bi fi nga xam ne waxtu musulaa raw nga ñëw gars yi toog nga am complexe toogandoo ak ñoom. yaa ngi wàññeeku. effectivement wala wàññeeku woo. yaa wàññeeku. yow taalibe nga boo xam ni foo mësaan toog yaa ngi zikkar ay salaatul fatiha sa kurus. Mhm. nga ñëw toog ci kër sëriñ bi. Mhm. amatul zikkar. da nga ñëw toog rek ngeen waxtaan naan ataaya mbilloo mbàlloo dem tool ya dellu siwaat dem ca daayira ya dellu siwaat loolu ba foo yokkoo ci yàlla mm-hmm. bu werdu jotee kenn du soññee werdu leen mm-hmm. bu wusi fa jotee kenn Seydil Hadj Malick radiallahu taala radiallahu taala anhu xoola ni mu fonke woon xam-xam noonu xoola xoola waxtu wusi fa sax du nangu sax ku téye téere wala àlli wa même xale yi jàppul tariqa bi ñëpp dañuy wéer àlliwa yi wéer tëj téere yi ak jigéen ñi ànd ak gaay ci wasifa bi di teewlu waxtu mhm. jàng ñëpp jàng waxtu julli ñëpp julli waxtu dem tool ñëpp dem tool waaye lii mooy tarbiya lii mooy tarbiya da lay jàngal yaa ngi may dégg mhm. ba nga ba nga xam bu jaamu yàlla jotee mu jiite la ci jaamu yàlla gi bu zikkar jotee mu jiitu la ci zikkar bi bu dem tool jotee mu ànd ak yéen ci tool yi mhm. ah, mu ànd ci tool yi mu toog ca tool ya ànd ak taalibe yi ngeen bay bu waxtu julli jotee mu ni wéer leen ñëpp wéer mu ni julli leen mu ni wéer leen ñëpp weer ñëpp wéer gopp yi ñu julli bu ñu jullee ba pare demaat ca bu waxtu lekk jotee ngeen lekk su waxtu naan jotee ngeen naan su waxtu jaamu yàlla jotee ngeen jaamu yàlla su waxtu toogaat ak moom mu defal leen mu zaakara waar leen ci wàllu yàlla defal leen ko lu jot rek mu ànd ak yéen defal leen ci ay sëriñu léegi <laughs> tool ya hadiya ja hadiya ja xarit tabaski ya matt ya fu mu toll <laughs> suukar ya fu mu fu mu mbir yooyu rek ah benn waay nee na ma benn waay nee na ma démb benn waay moo ko ne bàyyi naa sama sëriñ ah bàyyi naa sama sëriñ wa sharaf al quran wa sharaf al quran ah, loolu garaaw na de oustaz wallaahi mu ne ko bàyyi naa ko nee na mu ne ko lu tax nga bàyyi ko mu ne ko at mi ñaari yoon la ma siy téléphoné at mi ñaari yoon la ko sëriñ bi téléphoné téléphoné <laughs> bon nag <laughs> mu ne ko benn bi daf may laaj xarit tabaski fu mu toll pour <laughs> ñu indi ko dégg nga nee na beneen bi programme la programme mu sëriñ bi bu jub see sëriñ bi ne ko programme bi fu ngeen ci toll nee na ñaari yooyu la ko woo ci at. at mu nekk ñaari yooyu la ko sëriñ bi di woo ndeysaan. moo tax mu ne bàyyi naa ko mu ah, man de bu doon may ma balaa boobu sax man ma bàyyi bu yàgg. <laughs> Hadj Mansour 88 628 10. 88 628 10 95 mooy buntu jokkoo bi ak ustaz imam alhaaj Fam Makhtar Sylla ci seen émission Miftahul Huda fii seen rajo Safina FM 98 point 2 ñu waxtaanee tawxid ñu waxtaanee kennal yàlla ak wéetal yàlla subhanahu wa taala oustaz faram fàcceel ñuko ko place bi nga xam yàlla rek moo ko mën ci nit ki amul keneen yeneen xataa yonent bi pour ñu bëgg pour ñu mën ñu dégager sëriñ dégager ay wayjur amul keneen ku ko mën a occuper ci jàmm bi xataa yonent bi mënu ko occuper yàlla rek moom moo ko mën a occuper même nga teg fa yonent bi sax nga xam ni moom soo ko waxee dootoo wax keneen yaa ngi ci biir li nga xam ne moom lañ lay tere fa tabarakallahu mu wax ñu tamit conséquence ak danger ak risque bi nekk ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala jël place bi nga xam ni fa nga war a teg yàlla subhanahu wa taala nga teg fa keneen wala ngay xalaat sax wax ma sax teg fa waaye xalaata teg fa keneen kudul yàlla subhanahu wa taala yan danger la nekk te gis nga sanction yi ci sanction bi gën a rëy foofu la ko yàlla dóor mooy ñàkk njëggalam sa yaram araam aljana tifaaxan te loolu nag kenn ku ci nekk war nga ko mën a bàyyi xel parce que képp ko uutal palaasu jalla jalaaluhu wa azza kamal ëllëg dina làqu doo ko gis te war a jàkkaarloog moom subhanahu wa taala. dadul mat palaas bi sax. place bi <laughs> daf ko matul. kenn ku nekk place bañ lay teg sax matoo ko. matoo ko bañ lay jiiñ fii si àdduna rek mënoo def lépp mënoo ko gis nga mag ñi. mag ñi. baatu sëriñ. dañ ko daan daw. dañ ko daan daw. daw dañ ko daan daw duñ nangu ku leen wax sëriñ bi. Mhm. seen mbokkum taalibe rek. ndeysaan. sëriñ Ahmed Sakhir Lo. Mhm. bu kokki Mhm. yal na yàlla yokk leeram amiin yaa rabbal wax naa la jàngaluma musuma kaa gis waaye yàllaa ko dugal ci sama xol bi xam naa ne ku ko sopp nga parce que li nga koy tudd bari na trop dama ka bëgg ndeysaan nañu dégg mhm. photoom rek laa gis mhm. ak ñi mu jàngal ñu ma daan nettali ay waxam ak ay jëfam xoolal daaree kokki ni mu toll dégg naa sëriñ bi danaan toog ci bunt bi nga daal di ñëw fekk mu toog ngay indi ndongo luy jàng nga ni ko sëriñ bi laay laaj mun laa àggal ci biir nga laaj nga dugg ci biir laaj taali bi ana sëriñ bi ñu wër wër gis ñu ko ñun la ak ah, sëriñ baa ngi ci bunt daara ji dafa la toogoon sànq yaa ngi ko fekk mu toog ci suuf nga wàññeeku waat wala kenn ànd ak yow génn <clears throat> fekk mu toog mu daal di koy nuyu ñaari loxo ak na muy sukke sëriñ kii de yow lay seet mu ne ah kii kay romboon naa ko fi léegi mu ne ah romb nañu fi léegi dafa maa laaj sëriñ bi kat. dafa maa laaj sëriñ bi kat. waaw te man kat du sëriñ seen mbokkum daa ndonga laa rek mu toog ci biir ndonga yi di fàttali teg ñoom ten teg ñoom téere yàlla bi. ndeysaan ñoo effacé wu de te kooku nag <clears throat> ah. ah. léegi yomal xiyaam. yaakaar naa bu taxawee. مو احمد سخير اه مام احمد سخير لو اها رضي الله تعالى اها كان دنا ام دارا دي كان دنا ام دارا دي يا كان تي يلا ديغا ام دارا من ديم أه. احمد صخير له اللي دنا ام دارا ذكرنا كود ديسان سالتا ذكرنا كود ني مو جانغال القران اك أه. ليك القران جارال أه. اك لي مو داتي القران اك لي مو فينانسي القران فوقنا اللي بو تاوي سي دنا ام دارا دي oustaz te ba léegi mu ngi jàngale alquran waaw ba léegi mi ngi jàngale nelaw na yàgg na waaye ba léegi mi ngi jàngale ndax ñoom jàngale woon ñu ngi jàngale adduna bi ay daara yu bëri moom lañ leen tudde te xale yaa ngay mokkal alquran ba léegi ndeysaan ba léegi dagam tubaab bee man nit liggéey ba retraité mu continuer di fay ay doomam awaay sàkkam jàll jalaalo wa azza kamaalo kon nit soo bëggee ñi la yàlla booleel nite yow yaa njëkk a nite effacé wu lunu la wax na nga joxañ yàlla soo bëggee. ñin la booleel nite. yow yaay war a njëkk a nite njëkk a nite wu joxoñ yàlla. kon bari nañ ñu nite wul te ña ñañu àndal ñoo oh. garaat buñ la jox nga bëgg mu yokk garaat bu la jox boo demee si mbooloo feeg waxuñu si yow sa xol di firi. dafa mel ni mooy la daloon la lamaraana ca théâtre ba. waaw <laughs> koy seetaan. ndeysaan. cër buñ ko jox rek mu ne ah, ah na boobu. fa mu mujjee rek mooy sëriñ bi ñëw na mu ne ah ah man romb na foofu. Ah, ndeysaan ñu ne xutba bi ñëw dama ah, ah, ah, romb naa yooyu ndeysaan kon daal nit ku ne nit ku nekk euh, pour nga nite yow mi jiitu yaa war a nite niteel ña nga àndal effacer sa bopp mhm. delloo war leen ci ki nga xam ni mooy seen boroom mhm. فتبارك الله جرج فجرت إمام أستاذ بن كشوا رك حمنا نالك لا بل نيوت لن موتاه يو من توحيد إلهي عن مسجد الحاج مالك ما لنا نيوت عن سأكشال تين عن مسجد الحاج مالك لما نيني رك أستاذ عند الوقت ما مسجد مسجد الحاج مالك منصور سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه من أكشال تين عن التوحيد على الوقت example إكزامبل يبغى نيوت عن مسجد مسجد الحاج مالك Cheikh El Hadj Malick ni mu wéetalee yàlla ak ni mu joxe yàlla ni mu moom. ni mu wéetalee yàlla. yàlla ak ni mu joxe yàlla ni mu moom xool ko rek xoolal rek Cheikh El Hadj Malick eh, eh, nga baal ma bëgg mu dugg foofu sax xoolal tey rek ay ay doomam ak ay taalibeem xoolal taalibeem yi xoolal taalibeem yi xoolal taalibe Cheikh El Hadj Malick yi ah Tijaan bu jokk kër El Hadj Malick. ba pare di bokkaale ak yàlla danaa la laaj ko la may wert foofa danaa la laaj ko la may wert foofa waaw da nga ko nga jokk mm-hmm. nga bokkaale yàlla li mu muum fekk kër Cheikh danaa la laaj kenn moo la may wert kuy sa sëriñ man danaa la ko laaj man Pape Makhtar mm-hmm. <laughs> naa wallaay ndeysaan te te yàlla ah mënul nekk mënul nekk Cheikh El Hadj Malick mënoo wax dara lu jub ah. mënul nekk daal lu jub nga wax ko génnee ci Cheikh El Hadj Malick fii ci Sénégal ah. mënul nekk daal. maa ngi lay laaj rek te maa ngi lay laaj rek Mansour loolu mënul nekk c'est impossible. macha allah macha allah fadilat imam oustaz Pape Makhtar Sylla nee na mënul nekk mu xalaatu la mën a nekk sax fa tabarakallahu ah oustaz ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi la nga nga jox ñu euh, euh, nga résumel ñu ci deux minutes nga résumel ñu ci deux minutes ci liñ doon waxtaane tey jox ñu siy conseil orienté ñu ci deux minutes imam suñu bëggee daal suñu tàllee yoxe yàlla wuyuñu ñu dañ wéetal yàlla dañ wéetal yàlla ku bëgg soo ñaanee yàlla nangu da wéetal yàlla sa borom wan ko rek yaa fi nekk kenn nekku fi wan ko ni ko yow rek yaa mën kenn mënul wan ko ni yaay suñu borom tey yaay suñu borom ëllëg yaa nekkoon suñu borom démb te yow rek lañu yaakaar yaakaaruñu keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala loolu ko defee ah daañu am tawxid bu bu sell bu wér ñu am fullay ku bëgg a dox suñu diggante ak suñu borom ñu bàyyi la ñu am fullay ku bëgg a dox suñu diggante ak suñu la sa ñaari wayjur yàlla nee na Mansour Fall sa ñaari wayjur yi la meññi suñu bëggee dox sama diggante ak yow bàyyi leen ki la bàyyiloo sa ñaari wayjur ngir moom keneen jarul wax ki la bàyyiloo sa ñaari wayjur ngir moom waaw keneen jarul wax déedéet wa in jahadaka ala an tushrika billahi ma laysa lak bihi ilmun fala tutiuma bu leen topp de kon nag keneen jarul wax kon nag lin la bàyyil ci sa wayjur bu la ci keneen bëggee dugal ne ko bàyyi naa la ko bàyyi naa la. taalibi day am fulla yaa amoon sa fullaak sa fayda wuti sa sëriñ pour mu yóbbu la ci yàlla amaatal fullaak fayda bu la yóbbuwul ci yàlla nga dellu si ne ko sëriñ rocc naa sama loxo ca la ma doon jaayanteeg yow. yàlla yàlla def ci man dégg ak def ko ci yéen def ko ci mboolem jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fadilati imam oustaz cheikh alhaaji Pape Makhtar eh, jërëjëf yàlla na yàlla fay la yiw te barkeelal la dëgëral la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ni nga faram fàccee euh, suñu waxtaanu tey am na solo trop trop te neex naa dégg it euh, fa tabarakallahu yàlla na yàlla fay la yow te sàmm la ci barke yonent bi jaajëfal moolam ñi nga xam ni ñi ngi àndoon nañu ci 98 point 2 ci seen émission Miftaahul Huda euh, ñaanal leen yàlla mu dool leen tawféex ajjuma ji teraanga ji ci yàlla yi séddale yàlla bu ñu si dara may ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa jaajëfal ñëpp jaajëfal Ibrahim mi nga xam ne moo nekkoon sa technique bi e, liggéey bu rafet bu am solo ak dal gi ak yéene gi yal na yàlla fay la yow te mottali la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox e, rendez-vous auditeurs yeeg auditrices yëpp incha allahu rabbi ajjuma ci kattanu yàlla même heure même fréquence في صفنا فهم 92.2 واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبالخلاص وبالممدوح اعطي لنا اخلاص يا ربي وتوفيق ويسرا زينت مسجد